bari na koy wax te doo dégg mu firil la lu tax yaa ngi koy delloo ca la Serigne Cheikh waxoon ba doomam génne àddina soxna Asi bi mayoon Lamine Diack yal na ko génnee ci xat-xat yi mu nekk nii yal na ko ci yàlla génne waaye yal na ko ci yàlla génnee yal na ko ci yàlla génnee xat-xat yii ay tooñ rek la yal na ko ci yàlla génnee ci yàlla yuusufa bid asini na la def ci kaso bi te dañ ko tooñoon 9 ans bid asini na mooy 9 9 def na ko ci kaso bi te dañ ko tooñ ci yàlla Yuusuf waaye yàlla boobu dafa namoon mu nekk yonent mu dugguloo ko xalwa 9 ans waaw doomu bàyyee di dang dang rek di ut àddina yàlla ne ko yow toogal ma fii bu sa 9 yi matee nga nga majeur soo majeuree buur bi dee ma jox la palaasam nga nekk buur nekk yonent sa mag yépp ñëw nga yilifaat leen moo tax iñaan ko xam <laughs> li waram naan iñaan fanqul muur <laughs> waaw sa turandoo du du du du du ko tuuti de yonent yàlla yusuf ci ponkal yi la bokk waaw bokk na ci yonent yi gën a jege suñu borom ndax dafa juddu rek ànd ak natt ku la ëpp natt rek moo la ëpp cër ca yàlla dafa juddu rek ànd ak i natt waaw bañ koy sànni ca teen ba fukki at la am waaw fukki at la am am na ñu ne fukki at ak benn xam nga lu mu ci mën a doon yàggut bariwul mu def ci kaso bi juróom-ñeenti at fukki at ak juróom-ñeenti at muy ñaata fukki at ak juróom-ñeent balaxa asudda la xamal na ma ko fa ko yàlla xamale mooy ba mu gënte inni raaytu sab'a baqaratin simaanin yaakulahunna sab'un ijaafun wa sab'u sunbulaatin xudurin wa uxara yaabisaatin aftuuni yonent yàlla yu fi jege si ne ko lu ngeen mën a dajale dajale leen ko juróom-ñaareeti bekkoor di ngeen ko am sécheresse mooy mooy gënt gi nga gis juróom-ñaari nag yu suur juróom-ñaari nag yu yooy di leen lekk mu ne ko da ngeen am jur sept yoo xam ne sécheresse la lu ngeen bay du baax dingeen am sept ans yoo xam ne nag lu ngeen bay mu nangu fexe leen ba lu ngeen nangu fii sun mboli def leen ko ci ay sàq denc ko buur bi dégg ko luñ bay rek mu ne dajale leen dajale leen ba sécheresse bi commencé ñu jaaxle xamuñ ni ñuy def ndax bëgguñ ko pasar pasare mu ne ko inni xafisun alim kaay dënk ma ko ku wóor laa te ko am xam-xam bi la <laughs> nii xafizun alim dënk ma trésor public bi man mii nga man la dënk ma ko nii xafizun alim jàng naa bi xam nu ñuy contrôler xaalis waaye ku wóor laa ah waaw man mu ne ko finance rek laa def ndax financier ci yàlla moo ëpp doole fii xam nga boo nekkee financier ci yàlla bii du la jaaxal buur bi ne ko acca ca la décrété nag ne bu ma génnee àddina bu ma kenn doon yuusufa bi mooy sama ndono mu nekk buur nekk yonent fukki magam yëpp bëgg a dee ak euh, coono bay ñëw di ñaan si ndimbal te xamuñ ne moom la waaye gis nga jekku jekkali du ndam dangay ngay jekku jéggali mm-hmm. ba ñëwee mu xam ne ñii samay frère lañ ñoo ma sànni woon ca teen ba arsil maana yoon ba bàyyi ñu ànd ak yuusufa narta wanal ab inni axaafu an yaakulahu ziib kële yonant la xam na seen pexe yiñ tëral yépp moo tax mu jaar ca pexe ma ne leen dama ragal bàyyi leen ak yuusufa till lekk ko waaye bañ demee ba ñëw lu ñu wax till ko lekk mm-hmm. jaa bi dammin kazibin xam na ne ay nar la waaye gis nga rek ci gàttal ba mu ñëwee ba yëf leer naññ ko mbëccëg zalixa leeral yëf yi yonent yàlla yusuf taxaw ne ko lam axunhu bil ghaybi booboo ci dàq nag balaa buur bi dee la ko ne lam axunhu bil ghaybi mosuma laa wor sa kër tey la yàlla doon xaar buur bi joxe recommandation signé ne Yuusufa mooy sama ndono mu dem mu yopp mu doon pale ba doon trône ba doon lépp toog ca kaw di àtte mag yi ñëw toog ci suuf léeg-léeg kenn wax ko morom nag kii du moom <laughs> ah kaanahu huwa de niru na ko de ah bu dee moom it ñun suñoo new ci ah. ah damay tënk rek ñun ñépp ñu bàyyi xel ci iñaan loolu laa ci jublu te bañ ko jëlee àbb ko seen baay ne ko mooy suñ suñ rakk la bàyyi rek ñu yóbbu ko ndekete boobu dañ ko iñaanee gis nañ lu ci moom sànni ko ci teen te teen boobu am na ñaar fukki at ndox amu ca ay jaan rekk a fa dëkk waaye yàlla mën dëglul biñ koy sànni ci teen bi yàlla yebal na jibril ne ko demal interceptel ma yuusufa jëlal mbubb sooy ci àjjana solal ma ko intercepté ko wàccee ko ci biir teen bi te nanga ne jaan yooyu buñ ko laalee fa la jaan yi soppeeku gardien ba Yuusu wàccee ci teen ba gaan yi ga jaan yi soppeeku gardien di ko garde léeg xaj ñëw ba tiim teen bi xam ne nit a fi ne wow wow jaan yi sereti rek mu daw fa at laa dal waxu ba gaa ñëw ak seen di di root ca teen ba fa at damay tënk rek fa at laa dal waxu ci suratu Yuusufa bañ sànnee baag bi rek Yuusufa jàpp ci baag bi ñu xëcc xëcc mu dëgër ñu ne ah lii du to du ndox de ndox diise wut nii ponkal yi ñëw xecc xecc rekk balaa yuusufa di génn jibril ñëw na ba summi mbubb mi yóbbu mbub moomu la solalaat maam ibrahima keroog bi biñ koy sànni ca taal ma yuusufa ñëw génn ñu jaay ko buur bi ci juróom-ñaari dërëm set sept francs bi sama samanin baxsin darahima maaduda set francs lañ ko jaaye juróom-ñaari dërëm ñii ñoo soxor waaye yàlla mooy wane kéemtaan fa tabaarakallaahu bam toogee nag ba nekk buur baayam di yonant muy yonant baayam di di eh, di yonant muy yonant waaye muy buur te baayam du buur yonant rek la foofu la événement amee wax nañ ne looloo tax yuusufa amul doom fa rafaa abawayhi alal arsh fa rafaa alal arsh wax nañ ne toog gi mu toog ci kaw mënta ñàkk ndax yónnante la baayam yónnante la te baayam a déplacé wu fekk si yónnant moom section fële la yemoon Madiyana fa la yemoon yónnent boo mës a gis dafa am limite dañ ko limité woon fu fu section mi yem yónnent bi rek moo ñëw yàlla ne ko yow kenn limité wu la kaafatan li naasi bashiran wa ah, rek moo ñëw yàlla ne ko yow kenn limité wu la ci frontière kaaf fa ñépp laa la yónni penkook sowu nit ak jinne yonent yàlla yusuf ñëw baay bi xam na ne moom mooy priorité yonent yàlla yusuf taxaw ci trône bi ba baay bi yegg si mu nuyu ko wàcc gim ñàkk wàcc gàttandu ko ko moo tax amul ay doom yu nekk yonent te mënta ñi mënta wàcc gàttandu ko ndax protocole nanguwu ko ca jamono yooyu protocole lu buur nanguwu ko buur day taxaw rek nga fekk si ko maal asaf yonent yàlla yuusufa gis nga teraanga bi ko yàlla defar nekk yonent nekk buur maandu nag boole ci fa tabaarakallaahu moo tax Cheikh Sidi Ahmad Tijaani <laughs> radiyallahu taala anhu doon nu yonent yàlla yuusuf doon nu yonent yàlla ibrahim doon ñépp